si bi moom ñu ngi koy préparé bon euh, parce que match boo xamante ne si dafa am solo si ñun la. Mm-hmm. Euh, parce que premier match boo gis match bu njëkk dafa dafa dafa am dafa solo pour nga gagné ko parce que moo lay tax nga euh, am confiance waa nga dugg ci compétition bi. Mm-hmm. ak yeneen ñaari match yi des parce que lii ñun ñun actuellement nii sunu sunu objectif mooy premier match moo nekk sunu kanam loolu nañu ñaan gagné ko pare après pour jàll pa à pas. waaw parce que mun naa ne fii ñun famille la quoi famille pare nañu. Euh, pare nañu physiquement pare nañu mentalement bon euh, suñu staff tamit dañ leen di remercier parce que liggéey bi ñu def rafet na trop voilà di début fële fële la commencé Toubab Dialaw mm. ba fii nii Ndola ñu continuer ko fii kon dañuy ñëw rek pour yeggale li nga xamante ni si moom noonu liggéey fële waaw peuple Sénégal bi di leen di wax ni euh, ñu ñaanal nu bu baax parce que ñun tamit yaakaaroon lu dul yéen ñun ñu ngi fii dañ def suñu liggéey bon ñoom nañu sànni ay ñaan rek te incha allah rabbi coupe bi dinañ ko indi Sénégal